Ousin ñun nee nañ leen à chaque fois dañ leen indi lu nga xam te ni moom moo leen neex euh, mais na tey nag dañuy ñëw ci ki nga xam te ni moom mooy Gris Bordeaux les atouts de Balla Gaye 2 face à Gris Bordeaux ñëpp xam nañ ni combat Gris Bordeaux ak ki nga xam ni ak Balla taxaw na euh, bien vrai que nag wax dëgg yàlla am na mbas boo xam te mi ngi suñu moom moo fi nekk mais dañuy ñaan yàlla rek mbas boobu yàlla jëlee ko fi ndax lépp mën a continuer euh, wax dëgg yàlla première partie nee naa leen loolu la ñuy suñ deuxième partie nag dinaa ci ànd ak ki nga xam te mooy sama chéri muy Baye Jili ñu fas yéene waxtaan euh, def benn bilan boo xamante ni euh, école de lutte euh, Balla Gaye 2 ndax ñëpp xam nañ Balla Gaye 1 du ndax ñëpp xam nañ ne bii passé def nañ benn bilan boo xamante ni ci beneen écurie la tey école écurie Balla Gaye la ñu jël wax dëgg yàlla nag mu nekk loo xamante ni yéen bañ leen ko indilee peut-être am na ci jëf nañ ci ay yu bari loolu mooy won ni carrément yéen a ñuy suivre ki nekk ci caméra caméra bi nag mooy ki nga xamante ne mooy sama xarit <laughs> muy kàggu ah, di ko bëggee bu baax a baax euh, amoon nañ nag ay éléments yoo xamante ni jëli woon nañ leen ko parce que tamit euh, nee naa am na loo xamante ni boo koy def dañ ciy ànd ak ay expert ku ci mel ni démbalee bu suñu làmb jëli woon nañ ko waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy euh, Gris Bordeaux dañuy dem seeti élément bi te ñëwaat. Fatma maa ngi lay nuyu nuyu seen téléspectateurs yi Wassare TV di leen wax ni Gris Bordeaux champion la champion bu. mës a gëm boppam Gris Bordeaux dafa liggéey ba toll fu mu toll nii euh, man maa ngi rappelé euh, Abdou Barzi ancien directeur technique national dafa doon wax ni Gris Bordeaux jamono bu ki euh, Rox Mbala daan di entraîner INSETS Gris Bordeaux daan na fa ñëw di liggéey ak ñoom donc Gris job na au niveau de l'écurie Fass mais est sur le plan si biti tamit liggéey na li nga xamante ni moom moo ko may lu mu am tey Euh, mais mën naa la tënk par rapport ak ñetti atu yi nga wax nii pour ma tudd ko par rapport ak aux avantages de Gris Bordeaux par rapport à Gris Bordeaux d' abord euh, l'écurie Fass atu la nekk ci écurie Fass atu la xam nga lan moo tax mu nekk atu parce que écurie Fass c' est l' de la lutte comme ni ñu koy waxee euh, fu Mbaye Guèye nekk fu Tafa Guèye nekk ak yeneen technicien tel que Ibrahima Mbaye Socé xam nga Abdou Guèye xam nga ñooñu ñëpp ay borom bopp lañu euh, ak père sec préparateur physique sans compter individuellement yenn boy yi nga xamante ne yenn encadré yi nekk ci ginnaaw même bu fekkente ne mosuñu bëre ñoom Abass am na lu ñu xam ci làmb buñ ko apporté à Gris Bordeaux dafay doon sens énorme xam nga face bu manko rek danger la si adversaire si adversaire bi beneen atout bi ma mun a wax par rapport à Gris Bordeaux mooy son gabarit Gris Bordeaux illa a un gabarit imposant euh, taille bi force mun naa wax ni taille bi mu am handicapé parfois avantage la ci moom mais parfois day doon handicap pour adversaire am parce que Gris dafa doon mbër bi nga xamante ne dafa am dafa am dafa daaju ba pare nag dafa am assise assise physique tànk yi baax na loxo yi et cetera donc Gris par rapport à son gabarit euh, avantage la te gri euh, physiquement il est il est bon physiquement il est bon loolu mooy deuxième atout bi troisième atout bi troisième atout bi mun naa wax ni Gris c'est son expérience euh, moo jiitu bala ci làmb yàgg na ci làmb euh, nekk lu mu jàng écurie Fass lu mu jàng ci biti ci préparation yi mu am ay extérieur tel que INSEPS et cetera loolu avantage bi mu am la euh, bëri na ak tous les champions de de la dernière génération ñoom Yékini ñoom Baboy ñoom Bombardier génération yi ndaw yi xam nga euh, Eumeu Sène ñoom Eumeu Sène ñoom Tyson Junior ñoom Lac de Guiers Lac de Guiers numéro un et cetera donc Gris si boppam expérience la la mun a eh, eh, eh, expérience bi mu am avantage la ci moom par rapport à Balla cela ne veut pas dire que Balla amul expérience am na expérience mën na bëre te am na li nga xamante ni xam na ko te doomu doomu mais comme ci Gris Bordeaux la wax atu yooyu noonu mun naa la wax ni ay atu yi am solo la ci moom. di ko bëggeewaat bu baax a baax moom Dembélé mu nekk koo xamante ni à chaque fois wax dëgg yàlla daf ñuy euh, faciliter liggéey bi ñu koy nuyu na ko Pachage Dembélé suñu làmb nekk suñu confrère nekk suñu xarit ñëpp dégg nañ nag euh, li nga xamante ne moom la wax parce que trois atu yi nga xamante ni moom la wax ndax euh, nee na écurie Fass université la te ñëpp xam nañ ne écurie nekk na écurie bu mag boo xamante ni tey boo jël exemple écurie Fass ngay jël ni ñooñu dañoo xam làmb démb lee wax na ko ndax ku ci mel ni Abbas Ndoye ay ku ci ni mel ni ay ñoom père euh, Ibrahima Mbaye ku ci mel ni euh, Abdou Guèye xam nga père Mbaye Guèye ñooñ nga xam te ni ñoom ay làmb lañ ba pare écurie nekk na loo xamante ni wax dëgg yàlla nee naa leen ñoom dañoo xam nan la ñuy encadrer mbër waaw comme li mu wax rek ci Gris Bordeaux moom démbalee wax franchement euh, deuxième atu bi tamit dégg nañ ko moom mu ne euh, gabarit bi nga xamante ni moom la kii def nu mu tudd Gris Bordeaux moom la am ndax gis nañu Gris Bordeaux am na gabarit boo xamante ni macha allah mën naa bëre ku nekk nekk na koo xamante ni euh, wax dëgg yàlla suy bëree ak yow rek yow nee naa la ku lekk avance am doon nelaw bien vrai que ni nag ay combat am ndax tey ku am 11 victoire. am neuf défaites am 200 verdicts nekk na koo xam xamante ni tey boo tuddee VIP yi rek ah di nga ko tudd wax dëgg yàlla donte nag ay victoire am ak ay défaitam xaw nañoo méngoo ndax Balla Gaye de euh, nekk na koo xamante ni champion boo xamante ni naam Gris Bordeaux moom moo ko jiit ci làmb parce que kii le 2 janvier 2005 Gris Bordeaux ñëw en 97 nga xam ni lim ko xawee rawee ci làmb euh, xaw naa bari ndax démb lee wax na ko sànq ndax mu bëreel tey ki nga xamante ni bëri nag génération boo xamante ni naam sax dafa leen fa fekk fekk ndax tey am na ñu bari ñoo xamante ni Gris Bordeaux bëree na ak ñoom tey mu ñëwaat ci génération bi bëri ak moom loolu mooy wan ne expérience bi day joué mais daal lu ñu mënti wax ci combat boobu moom comme que bëree woon nañ ko gars na combat bi dafa xaw a soof peut-être bii moom dina xaw a mën a neex parce que ñu bari neen Gris Bordeaux bii moom wax dëgg yàlla moom mooy sànni tàccoom parce que am na lu mu war a wane loo xam te ni ndax kuy bëreel troisième tigre de Fass te ñëpp xam nañ ni Gris Bordeaux fi mu jógee combat am ak ma Mandione ba léegi léegi ja am nga xam te ni moom mooy victoire kon donc combat am ak Balla Gaye war na cee wane war nekk loo xam te ni peut-être waa Fass dañu am satisfaction ci moom ñu dem seetuwaat bi nga xam te moom mooy deuxième élément bi muy buur géwal bu Dakar Actu ñu dem te ñëwaat jërëjëf Fatma maa ngi lay nuyu di nuyu waa Wassare yëpp Euh, di la tontu aussi ci laaj bu solo bi nga laaj mooy ci combat bi nga xam ne moom war a dox ci diggante ki nga xamante ni que moom mooy euh, Gris Bordeaux dina la troisième tigre de Fass ak ki nga xamat si que moom mooy Balla Gaye 2 doomi Double Less alias Cukkuli euh, fan da ngay laaj ku ci nekk ay qualité ak ay défaut am commençant par Gris Gris tey boo ko dee natable ak mbër yu bëri mën nañu wax ni que mooy mbër bi gën wóor box ci làmb ji mooy mbër la boo xamante ne que xeex bi muy xeex ci làmb dafa précieux mooy que mën na jouer ci ay déplacement am te en même temps dafay jam di génn donc loolu qualité la euh, tey boo xoolee euh, par rapport ak Balla Gaye xeex bi balaa moo gën a mën a soli foog mu jàpp la foog mu téye ci ngemb mais gauche wala soit que ngeen jaxasoo mu mën a exploité xeex bi ci moom donc euh, boo dee jël ci wàllu bagaar ak su mën nañu wax ne que peut-être que euh, Gris Bordeaux la bagaar bi gën a gën a gën a jub te aussi combattant la ah parce que boo xoolee euh, néew na nga gis combat bu sedd Gris Bordeaux gis nga bi muy mujjee daje ak Balla keroog waa fas yenn nañ ko loo xam ni diis na diisaay boo xamante ni que Gris keroog bu daanu woon faatu moo ko gënal. keroog gis nga muy dajeeg Balla Gaye daanaka 9 ci suba stade le postulations la ko fekk ñu gis benn Gris Bordeaux bu am détermination benn Gris Bordeaux bu engagé wu benn Gris Bordeaux boo xamante ne que tey gëm na ni que tey euh, ñàkk ñàkk maanaam du ñàkk ñàkk à la manière. tey xëj na mooy Balla Gaye dóor ko mu daanu wala mu xattat bi ko yi ko dóor mbot waaye gis nga combat ba na mu jeexee par décision arbitraire euh, tax waa Fass aussi frustré wu ñu waaye aussi farme di faut ñu xam ne que Gris gëj na am tamit aussi victoire mën nañu wax ni ci digganteem ak ma Mandione la gëj a amee euh, victoire ah aussi waaye mbër la moo xam ne tey bu ma ko doon conseillé la ma ko daan surtout na moytu bëri suuf bi bëri suuf bi boo xoolee jël na ci ñetti defet mooy digganteem ak Yaxya Diop Yékini di sa carte appui la def digganteeg Modou Xarañ Lo dafa rëpp ba ci digganteem ak ki nga xamante ne que moom mooy Balla bi Balla bi numéro de kon suñ ko doon conseillé dañ koy wax ni que bu mu bëree bëri suuf waaye ki muy bëreel aussi dafay mbër mu résultat mën naa wax ni que c'est le meilleur de sa génération loolu mooy dëgg mooy Balla Gaye 2 alias Cukkuli boo xoolee mbër yi dàqoon xeex ci làmb ji daanaka bi ñu dajee ak moom mennum Eumeu seen moo ci jàll examen boobu waaye gis nga digganteem ak Tapha keroog ba mu dajeeg moom Tapha boobu jamono boobu nit ñi jàpp na ñëkk ci mbër yi dàq dóor la bokk waaye gis nga bi mu dajeeg Balla Gaye lam ci jëlee Modou Xarañ la bokk na ci mbër yi nga xamante ni que kenn dàq ku bëri di xeex waaye gis nga digganteem ak Balla Gaye kon Balla Gaye combat bi li ci chance ak li ci li ci qualité mooy que mu bëri parce que bëri mooy fooram. mooy bu tëddoon ba guddi boo ko yeewee sax tàpp tàppal ko boo ko nee euh, maanaam arbitre sifflé ci diggante mi ak adversaire mu bëree waaye combat la boo xam ni euh, ci Gris Bordeaux la gën a méttee li tax ci moom la gën a méttee mooy que il troisième Tigre de Fass li tax ci moom la gën a méttee mooy que impérativement dafa war a daan Balla Gaye pour sauver l'honneur l'honneur de Fass waaye est-ce que dina ko daan Balla Gaye de it moom it gis nga. fi mu jugee ci victoire bu triomphal ci diggante ak Modou Lo donc moom tamit dafa soxla victoire bi nga xamante ni que moom moo combat bi war a dox ci digganteem ak euh, Gris Bordeaux. waaye aussi Fatma il faut xam ne que Gris gëj nga am tamit aussi victoire mën nañu wax ni ci digganteem ak Baye Mandione la gëj amee euh, victoire ah aussi waaye mbër la moo xam ne tey bu ma ko doon conseillé dama ko daan surtout na moytu bëri suuf bi bëri suuf bi boo xoolee jël na ci ñetti defet mooy digganteem ak Yaxya Jóob Yékini disa quatre appuis la def digganteem moo Modou Xarañ Lo dafa rëpp ba ci digganteem ak ki nga xamante ne que moom mooy Balla bi Balla Bèye numéro 2 kon suñ ko doon conseillé dañ koy wax ni que bu mu bëree bëri suuf waaye ki muy bëreel aussi dafay mbër mu résultat mën naa wax ni que c'est le meilleur de sa génération loolu mooy dëgg mooy Balla Gaye 2 alias Cukkuli boo xoolee mbër yi dàqoon xeex ci làmb ji daanaka bi ñu dajee ak moom mennum Eumeu Sène moo ci jàll examen boobu waaye gis nga digganteem keroog ba mu dajee moom Tapha boobu jamono boobu nit ñi jàppoon na ñëkk ci mbër yi dàq dóor la bokk waaye gis nga bi mu dajeeg Balla Gaye lam ci jëlee Modou Xarañ la bokk na ci mbër yi nga xamante ni que kenn dàq ku bëri di xeex waaye gis nga digganteem ak Balla Gaye kon Balla Gaye combat bi li ci chance ak li ci li ci qualité am mooy que mu bëree parce que bëri mooy fooram. mooy bu tëddoon bu guddi boo ko yeewee sax tàpp tàppal ko boo ko nee euh, maanaam arbitre cible ci diggante bi ak adversaire mu bëre waaye combat la boo xam ni euh, ci Gris Bordeaux la gën a méttee li tax ci moom la gën a méttee mooy que il est troisième de Fass li tax ci moom la gën a méttee mooy que impérativement dafa war a daan Balla Gaye pour sauver l'honneur l'honneur de Fass waaye est-ce que dina ko daan Balla Gaye de moom it gis nga. fi mu jógee ci victoire bu triomphal ci diggante mu Modou donc moom tamit dafa soxla victoire bi nga xamante ni que moom moo combat bi war a dox ci digganteem ak Gris Bordeaux kon kenn ci ñoom ñaar waruta nangu defet non non waaye gëm naa ne que combat bu neex lay doon combat gladiateur la doon combat jàmbaar lay doon parce que Gris am na fu mu jugee am na fu mu jëm te waa Fass organisé waat nañu gis nga ñoom Abass Ndoye ak ñoom Moussa Gningue ñëpp dellusiwaat nañu bëgg gën a jàpp waaye Balla Gaye de euh, keroog Lamine Samba wax rek mooy ku muy dajal say mbokk du nu fanaan ndax luñ la mën a fay ci làmb ja mën ko caa def waaye moom ak ñamu àndal mën nañ caa def lu ko ëpp ngir am ndam wala kon daal Fatma euh, loolu mooy jàngat bi nga xamante ni que Bour Gueweul moom lay indil sur Wassare Lamb di ko béggewaat bu baax a baax moom buur géwél la ah, mu nekk suñu xarit nekk suñu lépp wax dëgg yàlla moom day sonn suñu bu baax a baax borom Dakaractu dégg ngeen nag ah, fi nga xamante ni moom la terminé Gris Bordeaux warul def erreur dafa war a def le tour pour sauver li nga xamante ni moom mooy écurie Fass ñu ngi ko léegi-léegi euh, wax dëgg yàlla lee wax na ko ñu koy nuyuwaat mais li ñu ci mën a jàngat moom mooy concentré rek parce que Gris Bordeaux boo gisee combat combat tay ñu tay mu dee yépp da cee da koo kii da koo da cee am ndam ndax euh, ku ci mel ni combat ak bombaax Bombardier da cee am ndam combat am ak Khadim Ndiaye combat am ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Tyson yooyu yëpp da cee am ndam ndax parce que boo gisee Gris Bordeaux à chaque fois bu ñu limee mbër yu mag yi naam li may wax rek ay victoire ak ay defetam am xaw nañoo méngoo mais force da koy lim parce que loolu yàlla moom moo ko may muy ci lan. yàlla moo ko may loolu xam nga ñun ñëpp nangu ko mais daal combat bii nekk na combat boo xamante ni muy Gris Bordeaux encore une fois kon du expert yëpp wax combat bi waru koo ñàkk parce que combat bi kat wax dëgg yàlla moom Balla bëgg na ko naam mais Gris Bordeaux moom moo war a def le tout pour sauver honneur bi waxuñu nag moom moo war a daan Balla Gaye mais comme li nga xamante ni moom la expert yi wax ndax tamit Gris Bordeaux wax dëgg yàlla dafa am lu mu war a wonewaat parce que ay rakkam ñu ngi seen ginnaaw te am na loo xamante ne erreur boo xamante ni wax dëgg yàlla bu ko defee rek pour écurie Fass duñ ne écurie Fass sax mais pour moom mu ñëwaat ci kaw day xaw a métti ñu koy bégewaat bu baax a baax moom pour bu Dakar Actu wax dëgg yàlla analyse bi am na solo dañuy demaat ci ki nga xamante moom mooy suñu trois troisième élément muy koo xamante ni moom it naam entraîneur Fass la muy suñu papa Ibra mbay moom itamit am na lu mu wax wax dëgg yàlla sax ah, dañ koo dañ koo kii. rien que pour mu waxal ñu ci rek mais wax dëgg yàlla yombul woon parce que kuy encadré mbër tamit nga wax ci mbër mi tamit day xaw a metti mais tamit nañu déglu élément bi ñu xool ba njàngal lañ ci am ñëwaat. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen jaar seen seen jàmm yaram bon man la Ibrahima Mbaye entraîneur écurie Fass en même temps ménager bon entre diggante Gris Bordeaux bala Gaye bon li ma ci wax bari parce que ñoom ñaar bëre woon nañu euh, yàlla def Balla Gaye arbitre jox euh, victoire par décision de arbitre. bon li ci des nag ñu dem ba ca kanam ñoom ñaar kenn ku nekk bëggaat combat bi parce que kenn ku nekk yaakaar nga ne am na war nga a daan sa bon bi combat bi taxawee ne Gris bëgg na ko Balla Gaye bëgg ko bon lu ci may Gris ndam nag Gris xam na ko parce que combat bi am na lu mu ko jaral ba li xam li tax nga am ndam ginnaaw yàlla yont bi xam na ko ne ci liggéey ak estafam ñu bokk ci liggéey li ñu bàyyi ak yàlla yàlla nag mooy maye ndam mais li nga xam ne moom boo taxawee ñu xam ne yow mii liggéey nga ko. bon loolu moom war na ko te dina ko def parce que xam na xam na combat bi li mu koy jaral ak fi mu koy yóbbu ëllëg li ci des nañu bàyyi ak yàlla su Balla gay bëggee dix nag Gris Bordeaux war na war na bëgg trent parce que en tant que troisième Tigre de Fass am na loo mën a mën a war a mën a wane ci bis bi waaw danga koy wane nag di xaar nag suñu borom defal la ci li nga bëgg ci kàttanu yàlla. ma combat yooyu nga ma wax yooyu yëpp ay combat la moom Baye Mandione moom Modou Lo moom Balla Gaye keneen keneen keneen. waaye li ci nekk mooy rek euh, boo nekkee borom jom toujours lu lay perte sa combat day yomb mais nag loolu nag looy waxtaan ak staff la ak looy looy liggéey ak ñoom ah loolu mënu ci ñàkk xam nga combat bi pour wax ci sax dafa teel mooy li ma la waxoon parce que ñu ngi ñaan yàlla sunu borom yàlla jëlal ñu fi feebar bii ba combat yëpp chaque fin du mois bu ne rek ñu mën a benn combat bu mag loolu la ñuy ñaan yàlla parce que combat yi ñu taxawal dafa bari mais nag pour wax ci combat bi nag dafa teel yéen mënu ma leen bañal dara mais wax ci combat boo xam xamagoo ndax feeg un an dañ ko bëre wala feeg ay un an et demi yàlla buñ fa yegg wax ci dafa teel mais nag yéen mënu ma leen bañal dara ndax samay doom ngeen yàlla na yàlla dolli jàmm jërëjëf. Mbaye di ko jaajëfalaat bu baax a baax wax ci am na solo kon ni mu wax rek euh, boo seetloo Gris Bordeaux ñoom ñëpp li ñu wax que ni combat bi am na fu mu ko war a mën a yóbbu ndax boo gisee Gris Bordeaux suy préparé combat ñëpp xam nañ da si da koy jox àqam ndax dina voyager. li mu war a def yëpp dina ko def te Gris doo ñëpp xam nañ wax dëgg yàlla moom mu day xeex ba naaw loolu ñëpp xam nañ ko ndax boo gisee kombaam ak ki nga xamante ne moom mooy Eumeu Sène boobu noonu ñëpp seetaan nañ ko ba mu jëloon tamit mu nekkoon combat xam nte ne mën nañu wax ni combat de l'année la woon euh, Gris Bordeaux nag wax dëgg yàlla ñun ñëpp waxandoo. mooy dëgg giri combat ki nga xamante ni moom mooy Balla Gaye Balla nag nekk na mbër boo xamante ni kuy bëri ak moom wax dëgg yàlla day xaw a metti kon ni ko suñ papa Ngagne Ndiaye waxee woon rek parce que fi muy jógee moom moo tax mais Gris Bordeaux tamit am na fu mu jógee donc fu mu jógee nag wax dëgg yàlla ñaanu yàlla demaat fa te xam naa ne combat bi dina am lu mu ko jaral comme sama papa lu mu wax rek comme que combat bi ñëwagul te am na mbas boo xam te mi ngi suñu kanam di ñaan yàlla rek yàlla tegu ko si jàmm ak salaam combat yi mën a ñëw ah ñu continuer li nga xamante ni parce que nee naa leen bi dañ commencé nii rek mais am na yeneen yoo xamante ni moom moo nekk suñu kanam Gris Bordeaux Balla Gaye combat boo xamante ni nag revanche la ndax ñoom ñaar bëree woon nañ mooy deuxième combat ba pare ñoom ñaar bokk ay adversaire comme ma ndax Gris Bordeaux bëre na ki nga xamante ne moom mooy Bombardier Balla Gaye bëre na ak moom bëre naa ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo Balla Gaye bëre ak moom bëre na ki nga xamante ne moom mooy Tyson Balla Gaye bëre na ak moom kon donc ñoom ñaar bokk nañ ay adversaire comme ma te kenn ku nekk sa écurie wala kenn ku nekk sa entraîneur dina am loo xamante ni peut-être di ko entraîner ak moom dina gën a yomb si ñaari combat yi mais combat boobu nag ku ne day yomb rek wax dëgg yàlla waxul lu mu xam ndax ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk am na lum la jaral Balla gay 2 dafa jóge ci li nga xamante ne moom mooy victoire te instant bi li nekk ci kanamam nee na pour jël li nga xamante ne moom mooy roi bi. Gris Bordeaux naam bëre woon na fi sax ki nga xamante ne moom mooy ex roi des arènes mais moom tamit waa fas boo gisee li leen gën a yokk pour ñu Gris Bordeaux bëre ak Balla Gaye am na fu ñu teg seen bët ñoom ñëpp roi bi la ñuy xëccoo kon donc nag wax dëgg yàlla affaire daal mi ngi suñu kanam xanaa di jëfal ñëpp di leen wax nag suñu deuxième partie moom mooy euh, ba léegi jàngat bi doy continuer ñi nga war a waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy bilan école de lutte euh, Balla Gaye comme que ci Balla Gaye Gris Bordeaux lañ jógee dañuy continuer rek ma war cee dalal ki nga xamante ni moom mooy euh, sama chéri li ñu fas yéene waxtaan tamit ci loola